tekk jii nga def moo gën lépp noonu la rek nag la demee moo eh, ngi gën a santaat suñu borom bu baax di gën a santaat sëriñ bi suñu lépp bi tey nga nag eh, ni ma ko daa waxee yéen kon mën na ne jëfe ngeen ko daa wax ne senegal ba ñu amee Sëriñ Tuubaa lañu amoon jàmm loolu baat moom tax mbir yàgg na dëgg naa ci kon yéen tekk ngeen baat boobu da ko jëfe kon dama ko waxoon rek waaye yéen mel ni ne eh, am ngeen dimbal ba gën ko gën ko mën a jëfe seen bopp yaakaar naa ne tey jii eh, ci ñi nga xam ne xëy na euh, xamuñu euh, te jëfe seen seen mel na ne séentu woon nañu euh, yëngatu bu rëy rëy rëy te yëngatu booba séentu wuñu ci woon jàmm kon yéen lu mu wax ci ci ci réew mi mais ba ñu amee sëñ Tuubaa lañ amoon jàmm yi mel na ne kon euh, yekkewe nañ leen euh, jëf jooju ndax nii ngeen ko defe muy euh, jëf ji ngeen koo jëf noonu rek la jëf jàmm feeñeel ko ci kaddu bi nga xam ne moom nga wax sant kon dafa mel ne jëf ngeen li ngeen war def mel na ni xam ngeen ko itam ndax mu war a gi kon jotaay bi xam naa lu mu doon man maa ngi ciy gën a cantu bopp suñu diggante ak suñu borom boole Sëriñ Tuubaa di am sama cant bopp mu diggante ak sëriñ lii moom lépp ci tawfeexi Sëriñ Tuubaa rek laa ko mën a delloo Sëriñ Tuubaa dafa am tawfeexi boppam da ko yàlla defal te neexu la xam fu mu yem No, recta. kon la ci am solo rek mooy kenn ku ne ci nun xam sa góor góorgóorlu ñëpp li ñëkk nit war a jëkk xalaat mooy góor gu xam jub njub yont yi loolu rek leen tax a loolu rek moo tax suñu borom yónni leen lépp njub mooy bunt bi bu njub amee rek yees yomb daal du jafe loolu nag ñun ñëpp ko bokk wala gu ndaw gi gi doon xàmmee ba ci mag mi nga xam ne àgg na ci yemukaay boobu noonu rek la loolu rek la nanu bu baax góorgóorlu ci suñu wartiif noonu ñëpp xamee na ne ni mu ni muy doxee fii mu toll na ni muy doxe ñëpp noo ngi ci waaye nu góorgóorlu ci suñu wartiif rek loolu rek moo ci am solo ba tey san ñoo ngi leen di jërëjëf noonu rek la jërë ngeen jëf na ma la ko joxoon rek ndax lii am ngeen ndam ndam lu rëy la ndax si yaakaar naa fan yii séentu wuñ ko nii te ci yéen la ko yàlla defe kon lii am nañ ci ndam lu rëy li indi loolu nag yoon waa ngoog